kon euh, itam lu jaadu la alors euh, ñu war a waxtaanee nag euh, lu aju ci wàllu Palestine la suñu mbokk jullit ya di fa dundu coow li dox seen diggante ak Israël ak yeneen ak yeneen yoo xam ni aju na ci soxal jullit ñu bari ñu am nag mbégte dalal tey Serigne Cherif Mballo moom mooy secretaire général bu campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds ak Palestine muy itam nekk ni ñëpp xamee njiital conseil supérieur des chiites Ahlul Bayt du Sénégal waaye tey kasketu euh, secrétaire général campagne sénégalaise bi moom la daal di sol ngir waxtaan ak ñun euh, Serigne Chérif Mballo ñu ngi lay nuyu am lool dalal la ci Demb ak Tay. Euh, asalaamaaleykum soxna Fatou Thiam ñu ngi lay ziare bu baax di bëgg ci yow bu baax ak ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ñëpp di topp. ci Rewmi FM. jërëjëf Mballo ñu ngi lay fay di la delloo ngërëm li ci disponibilité bi ngir sekk ak ñun waxtaan wi ni ko ko waxee nag tey alxuds la ñuy waxtaanee alxuds nag xew-xew la itam boo xam ni ajjuma ji ñu génn lañu ko doon màggal ndax mooy ajjuma ju mujj ci koor gi muy hmm. eh, xew-xew bu jullit ñu bari di bàyyi xel ndax mën nga ñu eh, ñëwal d'abord eh, ci xew-xew boobu lata ñuy hmm. dugg ci li nga xam ne moom mooy kuréel gi nga jiite te ngeen ci yëngu hmm. boobaak léegi yàgg na waaw jërëjëf soxna su baax si ñu ngi bu baax di la ndokkeel aussi ci weeru koor bi nga xamante ne ni ci lañu ñu génn euh, comme ni nga ko xaw a waxee ñaan yàlla yàlla yombalal ñu suñuy mbir yëpp nangul ñu ko ci di am mbégte lool ci rajo bi ak euh, liggéey bi muy def ci maanaam euh, conscientisation euh, maanaam peuple bi comme ni nga ko xamee euh, Palestine dafa nekk kii boo xamante ne bu am solo la cause palestinienne te li ko waral moom mooy li nga xam ne moom la Palestine ëmb ci wàllu histoire ci wàllu culture ci wàllu religion ba tax mu bàyyi xel ci ñu bàyyi ci xel ci wàllu diine yahud ci diine nasaraan ak ci diine l'islam donc euh, comme ni nga ko xamee euh, al ajuma ji ñu génn ci la ñu doon euh, màggal li nga xam ne mooy journée mondiale al Quds bis boobu nag depuis le 7 août 1979 ci Ayatollah Khomeini moom moo jëloon décision ne dafay fexe ba nga xamante ne ni gis na ne li nga xam ne moom mooy al Eh, dañu ko eh, ndargaaju muy maanaam yahud yi eh, sioniste yi ba tax na ñoom ci seen jëmu bopp jullit ñi ñi nga xam ne noonu lañu ñu waroon a taxawe alquds muy maanaam Palestine ak alquds taxawewuñu ko donc dafay jël ajjuma boo xam ne moom moo mujj ci weeru koor nga xam ne jullit ñi ñi ngi ci layaalil qadr maanaam guddi yu mujj nga xam ne dem nañu ba seen ñu set euh, euh, jaamu yàlla yi yàlla nangu ko bu ko defee ñu ciy fàttali Palestine pour boole jullit ñi ñu nekk benn parce que Palestine comme ni nga ko xamee fala la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëkk a jublu pour julli lu mot euh, fukki weer ak juróom-benn waaye aussi foofu la jógee dem ci asamaan yi dem jëri juróomi julli te nee nañu aussi foofu la bés penc di taxaw foofu lay amee donc dëkk la boo xamante ne bu am solo comme ni ma ko waxee mooy carrefour trois religions révélées yi mooy judaïsme ak christianisme ak l'islam hmm. moo tax ñun aussi pour euh, wuyu appel boobu moo tax chaque année euh, la campagne sénégalaise euh, pour la défense de lal et la Palestine nga xam ne man mi maay secrétaire général bi dama koy jiite depuis presque plus de trente ans mm-hmm. ñu ngi def ay manifestation yoo xam ne ay personnalité yu bari bu dee ci wàllu universitaires yi ci syndicalistes yi ci euh, ñi nga xamante ne dañoo jiite ay bërëbu liggéeyukaay mm-hmm. ak ci étudiants yi ak ci élèves yi mm-hmm. euh, nga xam ne léegi dem nañ ba ne ay kilifa ak ci société bi ci masse bi ñëpp dañ doon ñëw te à chaque fois chaque année dañuy ñëw ànd ak ñoom ñu nekk des centaines wala presque un millier de personnes ànd ak ñun pour màggal loolu nga xamante ne ni moom la ñu wax pour di fàttali Palestine fii ci Sénégal donc mu nekk loo xamante ne ni lu am solo la. Mhm. naka ngeen ko daan euh, maggale waaw màggal bi nag euh, dañu doon taxaw euh, liñ ci doon def mooy def sensibilisation bon daan nañu bind ay article daan nañu def ay publicité ci presse bi Euh, def ay manifestations di di di distribuer ay flyers ay déclarations mais également daanañu def ay marches waaw daanañu def ay marches daanañu léeg-léeg dem ba jox ambassadeur u Israël euh, ay lettres de protestation ak yu demee noonu doon nañ def ay conférences ay conférences débat mais également des conférences publiques yoo xam ne chaque année dañ koy def. moom moom couronné li nga xam ne moom mooy activité yooyu yëpp ñuy def pour la Palestine mm-hmm. donc mu nekk loo xamante ne ni pour jëmmal ñu nit suñu solidarité suñu soutien à ce vaillant peuple Euh, opprimés de la Palestine. Mhm. bala ñuy euh, ñëw bu baax euh, ci waa Palestine bëgg nañu itam xam naka ngeen taxawalee lii di campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et la Palestine. Mhm. fan la xalaat bi jugee ak lana doonoon sabab bi dëgg-dëgg. xam nga mbiru Palestine bu ko dee xool depuis 1947. Mhm. dafa nekk problème boo xamante ne ni bu récurrent boo xam ne ba tey kenn réglé ko. parce que boo dee xool xam nga Palestine géographiquement dafa nekk ci Moyen-Orient ci Proche-Orient mais xam nga ci géopolitique léegi dañu naan rek Moyen-Orient à mooy rive orientalu mer Méditerranée nga xam ne dafa ëmb Égypte ëmb Jordanie Irak palastine ak Liban moo doon Cham bu njëkk ba léegi ñu boo def Moyen-Orient muy ñu boole ci Turquie ak Iran Arabie Saoudite Bahreïn Qatar mooy les pays du Golfe per arabo persique wala di golfe persique donc euh, mu nekk problème boo xamante ne bu yàgg te mu ngi commencé officiellement en 1917 avec la déclaration de Balfour Arthur Balfour hmm. parce que dafa am benn accord secret boo xam ne signé nañ ko le 16 mai 1916 parce que euh, euh sur euh, avec l'aval de la Russie ak Italie ak ak Italie ci ci lan parce que dañu gis ne war nañoo mën a jox benn foyer juif maanaam euh, ñu jël euh, réew moo xam ne dañ koy jox yahud yi pour ñu moom ko ñu dëkk bu njëkk ba sax ñoom demoon nañu ba bëgg ko yóbbu euh, Argentine mais ça napa marché ñu bëgg ko yóbbu Ouganda ci Entebbe ça n'a napa marché léegi ñu xaat fan mooy baax ñu nañ ko def ci Palestine donc loolu moom moo indi ki nga xamante ne mooy anglais yi gis ku ñu tuddee Lord Lionel Walter Rothschild mhm. nga xam ne banquier bu mag la ñu dik ko surtout ndax contribution ci effort yu bari yoo xamante ne def na ko pour l'Angleterre donc ci noonu le 16 mai 1916 la ñu signé accord yooyu pour jox ko euh, ki nga xamante ne ni moom mooy euh, Israël l'Angleterre ñu tuddee ko Sykes-Picot waaw Sykes Mark Sykes moom mooy anglais bi ki ñëwoon pour signer accord yi final euh, accord final bi mhm. ak Pico François Pico donc loolu muy muy muy nekk accord yoo xam ne parce que jamono jooju démantelé nañu l'empire ottoman mhm. te nga xam ne mooy Turquie actuelle donc nga xam ne léegi loolu dafay ëmb Moyen-Orient de manière générale maire Noire maire Méditerranée maire Rouge os ba dem ba océan Indien ak mer Caspienne mhm. ci euh, au nord de l'Iran ñu tuddee ko la déclaration, accord révélé mm le 20, euh, déclaration de Balfour révélée le 23 mars 1917. Mm -hmm. donc ci problème boobu nag fa la affaire yi commencé ñëw ba 1948 1948 muy muy muy ñu i def euh, avec les Nations Unies. Mhm. Euh, la société des nations ñu ñu ñu ñu ñu ñu signé ay accord pour ñaari état mhm. muy état juif ak état palestinien. mais gis nañ ne ci biir loolu commencé ne am ay guerre quarante huit guerre ñëw mille neuf cent soixante sept ñëw te bu ci ñëw rek dañuy grignoter ay territoire palestinien te aussi mayuñu Palestine mu nekk un état viable dëkk boo xamante ne dafa war a mën a nekk donc vu tous ces problèmes là expropriation des terres nangu seeni dëkk dàq leen expulsé leen rey leen du euh, euh, boo dee xool am na fa ay ay euh, ay bande ñoo xamante ne de terroriste yoo xamante ne lu mel ne Stern Orgun Hagana ak yooyu yëpp nga xamante ne ni ñoom ñoo doon faagaagal et anglais yi et palestiniens yi donc ñooñu ñëpp di leen rey pour euh, rek mën a nangu seen terre yi euh, mën ko ñëw jëfandikoo ko mu yokk ko ci seen état muy l' état sioniste d'Israël donc problème yooyu nag bu amee te ñu gis ñoom état bi niñ ko créé parce que juif yi xam nga dafa am juif askenaz mooy ñi jóge Europe Europe centrale ak Crimée mu am juif séfarade mooy ñu génn ci bassin méditerranéen Espagne euh, arabe yi ñooñ ñooy misérim moom mooy juif yi nga xam ne ñoom ñoo jógee euh, euh, Asie centrale mu am sabara mooy ñu fa juddoo ak falashaay ñooñu yàggu ñu dem rejoindre yooyu yëpp ay groupe juif la yoo xamante ne kenn ku ci nekk dafa am foo jógee c'était des apatrides amuñu woon foyer ñoom ñëpp dañoo am fu ñu jóge foofu ñu jógee feneen ñu dem moom mooy Palestine hmm. ce qui veut dire que donc ñoom waruñu fa woon mën a nekk hmm. waaye gis nga par le truchement des puissances euh, occidentales ci la ñu jëlee Palestine loolu loolu nag depuis 1948. Hmm. ba suñu joomu yàlla tey nga xam ne ay guerre car 1948 1967 1973 benn bu ci nekk am na ci entre euh, euh ak pays arabes yi pour xeex. parce que dafa nangu seeni territoire lu mel ni Golan lu mel ni sud du Liban euh, lu mel ni Sinaï donc loolu moom moo indi instabilité ba tax euh, nit ñi di jóg pour xeex parce que loolu tooñeel la boo xamante ne ni bu bu bu flagrant boo xam ne dañ ci war a jóg taxaw xeex ko loolu moom moo tax mu nekk ñoom it Palestine ñu nekk ñoo xamante ne ni yàgg jàppale euh, l'Afrique waaw yàgg jàppale Afrique parce que Afrique ci maanaam bi nga xamante ne ni dañu doon xeex ci seen guerre de libération yi euh, Israël euh, Palestine daf leen jàppale bu ngeen dee xool et ci formation aussi ci wàllu guérilla ak yooyu yëpp ak ci yu bëree bëri militaire yaa ngi dégg mi ñuy résister mooy les résistants muy Afrique du Sud muy Angola muy Mozambique muy Namibia muy Guinée-Bissau muy cap donc yooyu yëpp ay ay raison la yu tax ñu war cee ñu war a gën a ànd ak ñoom ba tax dem na ba le président euh, le grand combattant de la liberté muy Nelson Mandela mu ne euh, l'Afrique ne sera libre que si la Palestine devient libre hmm. waaw Afrique mënul am moom boppam lu dul Palestine def ci boole moom boppam pour wane contribution wu hmm. Palestine ci wàllu Afrique donc ba sa question bi pour balayer pour ñu mm. mën a ñu ñuy déglu mën a comprendre lu bari ci loolu la sofoo lu mel ni Sénégal nga xam ne moom it ci Afrique la bokk te ci lii daf ci jël bopp maanaam daf ko jox euh, Sénégal plié la bu mag a mag ci wàllu ci wàllu diplomatie mm-hmm. dafa am poids bu considérable te loolu dafa yàgg lu traditionnel la mm. donc Sénégal boobu moom mooy pays bi nga xam ne en Afrique moo njëkk maanaam reconnaître l'état de Palestine en 1976 moo njëkk a ubbil Palestine aussi représentation diplomatique en 1977 moo njëkk a contribuer donc ci création sur le plan juridique maanaam l'état de Palestine Sénégal boobu moo njëkk a jox passeport diplomatique au président Yasser Arafat pour muy mën a dem muy génn ci bokk ci concert des nations mm. pour défendre la cause palestinienne mm-hmm. Sénégal boobu aussi depuis maanaam mille neuf cent soixante quinze mooy pays bi nga xam ne moom mooy présider gis nga mille neuf cent soixante quinze ba léegi ñaata la presque plus de quarante cinq ans ah waaw moom mooy diriger le comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien donc Sénégal boobu aussi bu boo day xool ci le vingt de trois euh, décembre oui bien sûr décembre deux mille seize ci résolution boo xamante ne ni dafa doon maanaam pour l'arrêt euh, des constructions israéliennes en terre palestinienne fexe ba nga xam ne Israël day téye kiam ci Palestine mhm. euh, dootul euh, tabaxati ci yenn colonie yi mhm. euh, bi loolu amee Sénégal moo ko porté gannaaw bi nga xam ne Égypte dafa mujj daw ku tudd ak ànd ceeg Nouvelle-Zélande mhm. ak Malaisie ak Venezuela donc ñun dañu ñëw rek topp benn tradition historique euh, itam seen diggante xaw a ñagas. waaw lii moo tax seen diggante ñagas. Mhm. donc ñun en tant qu'africain en tant que sénégalais ñu ànd ci loolu ñoo fekk suñu réew def loolu euh, mu nekk donc benn euh, position bu tra bu traditionnel bu Sénégal bu Afrique. ñu ñëw nag en tant que africain ñu ñëw ñu ànd nag ci loolu pour xeex li nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, euh, boddikonte bi moom mooy domination moom mooy nangu réewu jàmbur ci lu dul yoon di leen di leen di leen sonal di leen rey di nangu seeni suuf loolu moom moo tax ñu créer lu mel noonu comité bi bu njëkk ba am na amoon na ay tur dafa progresser parce que mbir yi aussi noonu lay demee comité Palestine Sénégal di dem di dem di dem ba agsi ci campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et la Palestine. Mm-hmm. boobaak léegi at mu jot euh, ngeen màggal euh, xew-xew bii di Al-Quds. ndax am na yeneen action yoo xam ni def ngeen ko euh, jëm ci wàll woowu. oui bien sûr ñun toujours ñu ngi saa yi ñu koy taxawee masse bi ak élite bi yëpp dañuy ñëw. Mm. saa yi ñu ko defee les diplomates arabes pays diplomates arabes yi maanaam maanaam accrédité au Sénégal yi ci gën a bari dañuy ñëw. muy l' ambassadeur du Maroc ak islamique aussi l' ambassadeur du Maroc nga xam ne moom mooy gérer euh, le le doyen de du corps diplomatique arabe accrédité au Sénégal toujours moo ko doon ñoo présider ak l' ambassadeur de Palestine en présence d' autres comme Iran comme Algérie euh, Mauritanie Qatar ñun ñëpp souvent dañuy yónnee. ak Maroc euh, comme ni ma ko ni ma ko waxee ak Malaisie Indonésie ñoo ñëpp dañuy yónnee chaque année pour que ñëw ànd ak ñun pour fàttaliku euh, li nga xamante ne mooy suñu position ci Palestine état de Sénégal aussi da doon yónnee toujours représentant surtout ci ñaari dernière année yi nga xamante ni ñu ngi ko ciy organiser. alors boobaak léegi euh, ban action aussi la état bu Sénégal def euh, ak yéen ndax euh, daanaka yéen voix wu réew mi yëpp ngeen porté donte mm. sax implication diplomatique bu Sénégal fës na lool mais ndax li ngeen di mm. def noonu yéen a ngi ciy liggéey ak kilifa réew mi. Eh bien sûr xam nga réew moom boo ci nekkee li jiitu ñu bàyyi la jox la sa liberté nga ci liggéey te amul benn entrave rek déjà ce qui veut dire que maanaam autorité compétente yi ñi ngi ànd ak yow ci cause bi. Mm-hmm. d' autant plus que ñoom ñooy euh, maanaam ñooy président Sénégal mooy président wu euh, euh, comité des Nations Unies pour l' exercice des droits inaliénables du peuple palestinien donc loolu lu am solo la loo xamante ne li ñu xam dañuy faciliter donc bu fekkonte woon ne ne loolu amul du ñu indi représentant bu officiel mu ñëw def discours pour ànd ak ñu ci li nga xamante ne ni mooy cause bi ñu. bi ñuy défendre ci kanamu des diplomates ci kanamu le peuple sénégalais nga xam ne en miniature la ñu représenté ci jour tey ci fanweeri at euh, yi nga xam ne yéen a ngi màggal alxut euh, ci yëngatu lan nga mun a jàpp comme bilan euh, ci li ngeen jot liggéey jëm ci askan wu Palestine. non xam nga xam nga xanaa bilan la à mi parcours. parce que loo gis am na évolution. effectivement parce que loo def plus de trente ans am na évolution. Mm-hmm. li gën a li jiitu moom mooy nit ñi. Euh, modeste même modeste soit-il mhm. moom mooy euh, xam nañu ci suñuy activité lan mooy Palestine mhm. waaw lan mooy problème bi dëgg dëgg dëgg dëgg parce que dañuy dañuy dem ci rajo yi dañuy dem ci télévision yi mhm. dañuy bind ci journaux yi presse en ligne bi dañ ciy bind donc élite bi dañuy participer ci ay contribution ak yooyu donc loolu dafa am solo te support yooyu nga xamante ni communicationnel ci la ñuy xamee. Mhm. donc te loolu li nga xam ne mooy li jiitu ñun amuñu sunu arme moom mooy sunu plume. Mhm. mooy sunu xalaat sunu ngëm. donc ci loolu la ñuy awee ci support euh, de communication yooyu. Mhm. wax li nga xam ne moom mooy problème mu Palestine conscientiser nit ñi. ñu xam donc te loolu vraiment defe naa ne la cause palestinienne euh, euh, du lu bees fii ci Sénégal parce que tradition la am na fi de grands diplomates ñoom Massamba Sarré Eh, eh, ku mel ni ab Ibra Dëggan Kan eh, ak yeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ci ñoo xam ne damay ci cité Falilou Kan maître kii le ministre Falilou Kan tu ñooñu dañu nekkoon de grands diplomates yoo xam ne fa El Hadji son excellence El Hadji Moustapha Moustapha Cissé dañu nekkoon de grands diplomates yoo xamante ne ni mm-hmm. tey ñoo jox visibilité ak lisibilité les relations yi nga xamante ne internationales Sénégal am surtout dañ ci participer. Mhm. Ah, ci ci ci ci ci étranger rawatina ci wàllu Palestine. Mhm. ak ci pays arabe yi. Mhm. yaa ngi koy junj sànq Afrique euh, taxaw na bu baax Palestine euh, waaye njukkal la bu ñu la déggee nga wax ndax euh, Palestine itam lebaloon na leen ko lu ko jiitu ci ay jafe-jafe yi ñu nu doon jànkonteel ñoom réewi Afrique yooyu mais ñu ñëw ci particularité bu Sénégal wax nga sànq li nu jot a def ngir Yasser Arafat jox ko passeport diplomatique ak yeneen ak yeneen Sénégal moo sabab dëgg-dëgg ñu porter combat wu Palestine boobu bu fekkente ni euh, mën nga ñu ci ñëwal ak itam li nga xam ne euh, bu weesoo passeport diplomatique bi jot nañ ko ci euh, fësal comme engagement. xam nga xam nga am na yoo xam ne ci li ñu xam. Mm. mooy ne comme Sénégal ak Afrique. ñoom daf leen yëtteel lépp loo xamante ne ni liberté la. Mm-hmm. ak les droits de l'homme mm-hmm. la démocratie. Mm-hmm. la paix ñoom mënuñu gis toujours mu am. Euh, entité wala pays wala groupe wala collectif wala collectivité boo xam ne groupe dañuy jalgati li nga xamante ne ni euh, mën na indi yooyu nga xam ne ay valeur la de paix de stabilité de liberté ak démocratie hmm. mu indi instabilité hmm. maanaam euh, ñàkk dal ci réew wala ci gox donc ci gis na ne li nga xam ne moom la Israël di def di attaquer hmm. ay réew yoo xamante yoo xam ne moomu leen di nangu seeni suuf mhm. jël réewu Palestine nangu ko. di leen coloniser daanaka. di leen coloniser. Mhm. di ko def di def lu le lu ko neex. ci biir loolu gis na ne moom mënul toog ci loolu moom ak pays africain yi. Mhm. ci loolu la ñu jëlee ñoom ci seen jëmu bopp décision bi ñu jël mais Sénégal def ci raw parce que ci jamono président Senghor xam nga Senghor nit la woon koo xamante ne ni ku ubbeeku ku ku amoon vision donc ci moom la dépare relation yi nga xamante ne moo am entre moom ak Palestine parce que bu leen fàtte aussi Palestine ci wàllu histoire même ci géographie dañu am relation ak Afrique parce que Égypte muy ardul Canaan muy les Cananéens ak Palestine presque boo dee xool ci benn eh, eh, dañu dañu dañu lié wu géographiquement. Mm tu vois ak Égypte ci Afrique la bokk. Mhm. donc loolu dafa am solo te bu leen fàtte aussi jamono yooyu y avait Abdou Nasser mu nekkoon un progressiste boo xam ne idée progressiste la yore woon yoo xamante ne ni anti sioniste euh, anti israélienne donc loolu aussi ak relation yi mu amoon ak Senghor ak yeneen pays Houphouët-Boigny ak yeneen pays africain yi yooyu tax na Sénégal ñu gis ne en tant que pays musulman mhm. euh, mais également ak maanaam diplomatie am nga xam ne noonu la amee dynamisme ak vivacité mu porté combat bi moo tax mooy pays bi njëkk a reconnaître maanaam la Palestine ubbil ko représentation diplomatique jox ko ay jox ko instrument de souveraineté internationale muy passeport diplomatique pour mu mën a dem muy euh, défendre la cause palestinienne à travers le monde mm donc loolu moom moo tax Sénégal mu nekk pays boo xam ne bu am solo ba pays arabe yi aussi ci position yooyu nga xamante ne am na ko euh, nga xamante ne tey lañ tuddee les rapports arabo africains nga xamante ne les relations arabo africains nga xam ne bu njëkk ba gënoon na dynamique mm-hmm. bokkoon na Sénégal bokkoon na ci fer de lance euh, coopération boobu te ba loolu ba léegi yaa ngi gis jeexital bi entre le Sénégal ak ces pays nga xam ne tey boo dee xool ub bi nga xam ne diplomatique bi la Sénégal di représenté en Afrique euh, euh, néew na nga gis pays boo xam ne euh, arab yi jox nañ ko considération bu toll noonu nga xamante ne biñ jox Sénégal jox nañ ko yeneen pays africains mhm. ñu ñëw euh, ba tey euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy jàppale gi ñeel réew yi ni Sénégal ak Afrique joxe bopp Palestine Israël itam noonu la amee ci weneen wet gi ay réew yoo xam ne ñoo ko jàppale ndax li muy def noonu am na ñoo xam ne ñoo ne ci ginnaawam bu ñu ko mënee waxee noonu li wolof naan ku ñeme dañ laa dee. Mhm. Israël bokk na ci ñi ñu jàpp ne ñoo ko dooleel États-Unis France itam daan ñu dégg ci coow li donte mel ni seen baat daf cee xaw a fay tuuti. Mm. Euh, loolu daf ñuy dugal ci historique gu euh, conflit bi mais ci réew yi nga xam ne ñooy jàppale ku ci ne fi nga jàpp. oui oui xam nga États-Unis sax da moom dafa am responsabilité bu mag ci ci affaire li xew Moyen-Orient. parce que moom premier objectif bi mu am mooy sauvegarder des intérêts occidentaux au Moyen-Orient. Mm. maanaam intérêt yi ñu am foofu moom li ko li ko li koy téye moom moo ko intéressé te ki nga xam ne moom mooy tête de pont bi nga xam ne parce que euh, boo dee xool réserve en hydrocarbure lu mel ni pétrole gaz ak richesse yi fa nekk ak point stratégique bi mu nekk mm-hmm. géostratégique muy muy muy muy Moyen-Orient mm-hmm. ak proche ak Moyen-Orient donc munul bàyyi lu mel noonu mu nekk ci mu nekk noonu rek il faut que mu am fa présence mm-hmm. surtout ak proximité am géographique euh, ak Europe vingt nga xam ne Europe dafa bokk ci li nga xamante ne ni mooy l'Occident boo ko dee wax ci sur le plan géopolitique mm-hmm. donc loolu euh, lu tax loolu parce que pour que mu am benn maanaam xam ngeen lobby juif maanaam mm-hmm. ña yahudi mooy les sionistes euh, maanaam mboolem luy complexe militaro industriel ci Occident daanaka ci seen loxo la nekk mm-hmm. ci wàllu industrie armement ak yooyu te xam nga économie armement militaire moo gën a gaaw a joxe maanaam koom mhm. donc loolu moom moo tax ñu ñëw ñu indi euh, lu mel ni Israël nga xam ne comme genre porte avion la même gis nga sax forme géographique am mhm. ñu installé ko foofu mu mel ni comme benn corps boo xamante ne ni extérieur bu ñu greffé mhm. ci corps bi naturel bi nga xam ne moom bokkul woon foofu parce que bu fekkente ne ni israéliens yi dañ leen indi foofu parce que nee nañu seen i suufi maam la woon mais arab yi aussi mais ñoom foofu seen suufu maam la woon parce que ñoom du ñoom rek ñoom ñooy les sémites mhm. du dëgg parce que les les les les yi c'est ci sémites yi lañ bokkoon mhm. armaharic moom mooy langue éthiopienne les éthiopiens yi langue ay sémitique lañu mhm. hébreu nabatien yi ay sémitique lañu te bu fekkee ne dafa dellu ci wàllu religion Ibrahim mi ngi joge Ur ci ci Mésopotamie Babylone du dëgg fii moo mooy Canaan Palestine bokkul bokkul bokkul du dëgg mhm. donc mu fekk foofu ay peuples yoo xamante ne ñoom dafa njëkkoon dëkk te Ibrahim boobu moom dafa ñëwaat fii ba ci euh, ci première kii dafa ñëw fii en Afrique euh, Égypte mhm. bi mu jógee Égypte la dell la la dellu ci la euh, amee sunu yaay kii Haajara mhm. gis nga ko ba Ismaïl juddu ci ci Nubien la muy muy muy muñ ko dee natt tey Soudanais tu vois nga xool Youssouf yonent yàlla Yuusuf xisaam ci alquran jàng nañ ko mhm. Moïse euh, moom moom dafa jóge jóge jóge Palestine ñëw ñëw Égypte moom Yuusuf mhm. Moussa aussi gis nga dafa retour bi waaw ci ci ci ci en Palestine tu mu ñëw ba David avant lutte xeex entre David ak Goliath mhm. ñëw ba ci ki nga xamante ne mooy Saul David muy premier roi d'Israël deuxième roi bi di David troisième di Salomon après ba Nabuchodonosor jëlee leen foofu yóbbu leen Babylone ci ci année euh, euh, cinq cent quatre-vingt-sept vous voyez avant Jésus mm-hmm. ba ni ñu leen de Corus delloo si leen waat muy benn roi perse en foofu ba ni Romain ñëwee tas leen tu donc tey bu ñu ñëwee ñu ne voilà ñoom ñoo moom Palestine loolu dafay doy waar mm-hmm. léegi nag États-Unis boobu moom moo indi lañ bat affaire bi mm-hmm. pour que mu am maanaam cette euh, ce complexe militaro-industriel yi nga xamante ne ci seen loxo la nekk te ñoom ñooy dominer Occident ñoom les euh, sionistes donc bu ko defee mu ma ñu am foofu benn présence mm-hmm. sur le plan géostratégique mm-hmm. moo tax ñoom it aussi pour que ñu toog comme léegi dafay am toujours problème dafa am instabilité mm-hmm. ils ont créé une théorie bu tudd ordre op ciao muy ce qu'on appelle euh, euh, le désordre constructif désordre constructif boobu kan moo moo ko moo ko théorisé mooy Bernard Levy mm. Bernard Levy euh, benn ci université John euh, Hopkins mm. bu New York foofu la nekk yor foofu benn chaire donc ci wàllu moom moo indi ni euh, bu ñu bëggee sur le plan géopolitique ñu ciy xool wala géostratégique pour indi problème entre arabes yi bu ko jëlee américains bu ko aborder comme ça sans que autant que mu am benn profondeur euh, euh, ci seen études yi du dem hmm. ci la indi na il faut que ñu indi conflit yi nga xamante ne doon na am entre arabe ak arabe hmm. mais bu ko defee ñu mën leen diviser pour mieux régner bu ko defee ñu mën a contrôler yi nga xamante ne mooy les grands jugements gaziers hmm. parce que guerre yi nga xam ne yëpp ay guerre yi am ci Moyen-Orient la bi ci jiit territoriale la woon mais actuellement guerre la yoo xamante ne ni de gazoduc et de d'oléoduc gazoduc mooy yi nga xamante ci wàllu gaz ci mm-hmm. wàllu pétrole mm-hmm. donc moo indi guerre Syrie bi nga gis ni mm-hmm. moo indi euh, li taxoon ay ay ay ay pipeline yu ñu waroon a jëlee euh, euh, ci ci Qatar mu aw Jordanie aw Arabie Saoudite jël Jordanie remonté dem Liban benn dem Liban benn bi dem Turquie yooyu yëpp pour contrôler pour contrer maanaam la Russie bi nga xamante ne moom moo doon yóbbu toujours gazam di ko awale Turquie hmm. muy euh, euh, Ukraine muy dem te toujours dafa am problème ak ak Europe donc loolu dañ ko ci ñàmbasaale hmm. mais pour indi maanaam li nga xamante ne ni mooy instabilité bon bu ko defee dinañ mën a gën a jaay seeni dinañ récupérer euh, le le le les richesses pétrolière gazière gazière yu pays arabes yi mais également arabes yi ñu xeex entre ñoom tour seen deret te tant que xeex mi ngi am ngànnaay day jar moom falaa jëm nii mhmm. boobu ñaanaay bi mooy ñett bi parce que ngànnaay bi bu bu bu amee léegi ñi nga xam ne ñooy sa futur ennemi parce que mhmm. aussi bul fàtte lislaam l'islam dañ ko jàppee comme ennemi mhmm. boo xam ne ëllëg moom moo leen nar a si le plan civilisationnel ak yeneen culturel yu demee noonu. idéologique mhm. waaw donc loolu moo tax ñett yooyu mooy créer désordre fexe jël main basse teg ko ci teg ci seen loxo teg ko ci richesse yi mhm. maanaam jaay leen gànnaay ñuy xeex bu ko defee dootul am stabilité dans cette partie du monde bu ko defee ñoom ñu continuer di def li ñuy def mhm. donc loolu rek moom moo tax jël Israël samp ko foofu. ne nag toogal ñu fii nga surveiller ñu yow yaay seul démocratie fii mais actuellement je ne pense pas que loolu mu mën a nekkati. Mm. parce que actuellement pays yi ñu ngi màgg te gis ngeen ko relation déjà Israël bi mu laalee ak euh, le Liban le Hezbollah gis nga li ko ci fekk. Mm-hmm. en 2006 ba léegi ñemeetul. Mm-hmm. gis nga 2014 ba léegi bi mu laalanteeg Hamas bu ndaw bi. nga xam ne ay xeer la ñu yore woon dégg gis nga muy évoluer ba ak ci nii tey mhm. daanaka ay escarmouche rek mooy am dañuy menacer rek leen la ñu dese moom mooy le le renseignement maanaam la communication mhm. te xam ngeen communication ci pays yi li ci gën a bari soixante dix pour cent des guerres communication moo koy gagné mhm. waaw donc tiital la indil la kii gis nga problème mu coronavirus bi mhm. daf leen déshabiller ñoom occidentaux yi nekkati li ñu doon wax seen puissance yëpp. nii la mel ak yooyu. Mhm. tey ndekete même ba ci masque sax mënuñu ko am bay dem di lu mel ni Amérique di kidnappé ay ay ay masque ci tarmagu aéroport Chine. Mhm. yoo xam ne France moo ko commandé woon mu jël ko par force fay ci presque quatre fois le prix pour mën ko yóbbu États-Unis seen président di Honor Gurriel ne utal naa leen ay masque fu mu trouvé dans le monde dem naa jëli ko fa. Mm. Israël ci jëmu boppam ndekete amul sax ay masque ak aspirateur Émirats arabes unis malheureusement moom moo ko jox ay masque mm. ñu naan voilà euh, euh, euh, Mossad dem na jëli ay masque masque yooyu bi nga xamante nga xamante ne ni dafa nekkoon lu difficile mm. ñun ñoo ko dem Mossad alors que gis nga Sénégal fii mm-hmm. bi mu soxlaa masque service lañ ko jox rek mu commandé mu jeex mm-hmm. tu vois mais dañu koy rëy parce que Israël dafa njëkk a demandé à l'Allemagne ay masques Allemagne na ko lii réserve stratégique gu Allemagne surtout mhm. avec euh, le le coronavirus xamuñu fan la jëm. Mhm. mu détourné mu dem fale léegi nag ñu koy rëy donc ci propagande agitation ak propagande loolu rek moo leen dese. Mhm. mais monde bi gis nañ seen faiblesse Euh, fan la ne alors ñoo ngi ci bataille historique euh, li nga xam ne moom mooy crise euh, israélo-palestinienne crise boobu yàgg na te itam am na ay étapes yu bare bare bare yoo xam ne franchir na ko yi ci gën a fës gën cee am solo jur itam ay coppite yu bari ndax mun nga ñu cee ñëwal ci yenn yi bu ko defee ñu ñu nit ñi gën a comprendre ndax tey bëri na ñoo xam ne dañuy dégg coow hmm. Israël Palestine waaye dëgg-dëgg xamuñu xamal nga ñu cosaan léegi à travers li nga xam ni génneen ca université euh, John Hopkins waaye euh, am na yeneen i étape yoo xam ne euh, xëy na am na solo lool ci ci boobule crise bu ñu ci mënee yaatal. Palestine na ma ko waxee dëkk la bu am solo ci ci diine l'islam mm. ndaxte boo dee xool suñu yonent yi alayhimu salaam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am nga fa da am nga fa xew-xew mm. parce que nee nañu ñu ko créé trois mille ans avant Jésus-Christ mm-hmm. benn ci sëtu maanaam Euh, saam saam nekkoon doomu noox yonent yàlla noox waaye hmm. donc xam nga kon loolu loolu yàgg na hmm. mu nekk aussi carrefour des trois religions révélées hmm. mu judaïsme ak lislaam ak christianisme mais foofu parenthèse judaïsme nekkul sionisme waaw c'est différent parce que ci li ma li ma léegi ci ci ci yahud yi bokkul maanaam am na ci yahud yoo xamante ne ànduñu ci état d'Israël parce que même ñi ko créé muy sionistes yi mooy Théodore Herzl ñooñu nekkuñu woon sax ay ay juifs yu pratiquants hmm. c'était des laïcs mais ñoom dañ ko créer rek xam ngeen ne am na ay force yoo xamante ne ni secret ñoo nekk ci ci monde bi di diriger ni ñu ko mënee le monde waaw donc loolu moom moo indi mu mu moo moo looloy parenthèse mu leer donc euh, Palestine boobu foofu la Quds nekk te Quds muy euh, muy euh, Baytul Maqdis yonent bi fa njëkk a jullee balaa muy di jublu balaa muy jublu màkk ci kaaba gi. Mhm. te pourtant mi woon foofu. xibla la woon waaw xibla la mooy première xibla. Mhm. ñaareel bi yonent bi fa defee Isra wala maanaam Mi'raj. rañaan gi. rañaan gi pour dem jëli juróomi julli. Mhm. maanaam yonent yi gën a bari saa saa yi foofu lañ leen jenc foofu lañ foofu lañ doon nekk maanaam ci suuf la goo xamante ne ni yàlla daf ko barkeel comme ni mu koy waxee ci alquran ba audu billahi min shaytan rajim subhaana allazi asra bi abdihi leylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi al aqsa allazi baarakna xawlahu gis nga donc ki nga xam ne sell yeel na ki nga xamante ne moo rañaane jaamam ci guddi jële ko ci beytil maanaam ci masjidul xaraam mooy màkkatal mukarrama mm-hmm. yóbbu ko ci masjidul aqsa mooy jumaa ju sori ja mm-hmm. tu vois bu nga xam ne allazi baarak naa xawlahu bi nga xamante ne dañoo barkeel li nga xamante ne moom mooy li ko wër donc li ko wër yëpp moom mooy donc alentour bi mm-hmm. alentour géographique bi ban la donc c'est toute la Palestine mm-hmm. tu donc te yomal xiyaam aussi fa la di daje mm-hmm. moo tax gis nga mu nekk suufu tension tu donc lu mel noonu bu amee dafay nekk loo xam ne lu am solo dem na ba gis nga xalifatu Umar ibnul Xattaab moom moo njëkk a ñëw gis nga bi mu reñee rek moom dafa ñëw euh, euh, daf ko soxal pour jëlaat parce que dafa bokk ci patrimoine islamique géew kan dafa fekk benn archevêque bu tuddee Safarnus hmm. yaa ngi dégg moom moo ko jox les clés de l'église de la résurrection muy alkanisa al alqiyama bi mu fa jógee gis nga Abdul Malik ibnu Marwan ñëw mooy ci Omeyyades yi hmm. doomam Walid moom moo tabax mosquée bi dem ba ab Abbas yu ni ñëw Fatimi ñu nii les mooy les Fatimites. Mhm. dégg nga ak les guerres des croisés tu vois mille soixante seize mille quatre vingt quinze ak mille quatre vingt dix neuf dem ba Salahuddin Ayyubi ñëw mille cent quatre vingt sept mu jëlaat mosquée bi. voilà mhm. mhm. donc mu mu ñu ñu delluwaat mu amaat amaat mu amaat xeex encore mille deux cent quarante quatre kiñ naan Saalih nañ mu diin Ayub mu ci Ayub yi la bokkoon yaa ngi dégg moom it mu mu mu après ci croisade mu jël ko. dégg ci ci ci ci tartaar yi ci loxo koo xam ne azahir bay ba bay bars bay bars boobu parenthèse les quatre ngir yi nga dégg ni ngiru l'islam mhm. mooy les quatre école juridiques mooy xanafiya malikiya chafiya hanbaliya mhm. moom moo ko codifié en mille deux cent soixante cinq ne léegi ngir yi rek la ñuy jàngale dans le monde sunnite musulman tu donc loolu dafa am solo mhm. donc loolu moom moo tax Palestine ñu mel ni ñun euh, ak jullit ñi mm-hmm. ak les hommes épris de paix et de justice mm-hmm. bien sûr avec euh, les femmes éprises de paix et de justice mm-hmm. mënuñu toog gis lu mel nii euh, mu am importance symbolique bu mel nii te duñu ko maanaam toppatoo parce que même boo dee xool aussi ci Palestine ci juif yi tuddee maanaam tablettes yi al alwaax maanaam tablette yi nga xam ne moom la Moussa alayhi salaam yore woon Euh, euh, ak arche de d'alliance lii nga xamante ne maanaam loi yi muy tablette bi yi nga xam ne moom lañ ci bindoon ak arche d'alliance bi nga xamante ne ni ab secret la yoo xam ne dafa nekkoon foofu ci bi nga xamante ne ni Souleymane tabax na euh, maanaam temple bi avant ñu koy détruire mhm. kooku dafa dem kenn xamatul fan la nekk waaye parce que dañ ne le messia ñoom seen messia seen mahdi mooy le messie mhm. kooku moom moo koy war a mën a ñëw indiwaat ci te mi ngi apparaître ci benn montagne bu ñu tuddee Sion fa la ñu jëlee le nom sionisme. donc importance boobu ak Amérique ni nga xamante ne noonu la bëggee ci côté bi mhm. moo tax moom it mu indi yaa ngi koy dégle plan Trump. Mhm. mooy le deal du siècle deal du siècle boobu boo gisee mu indi ko pour essayer toujours gën a fexe domination mhm. euh, sioniste euh, israélienne mu gën a am ci kaw sur la Palestine. Euh, plan boobu mu nekk huit plan bi ci jiitu mu nekk euh, maanaam pays maanaam Palestine dafa reconnaître Israël comme état juif mhm. xam nga bu ko bu ko reconnaître comme état juif léegi problème de nationalité ak de citoyenneté dafay posé wu pour pays maanaam arab yi nga xam ne de 1948 fale leen Israël fekk ba pare nangu seen suuf mhm. tu vois mhm. et puis boole kook encore ay doxandeem ay doxandeem ci seen suuf loolu aussi fexe ba nga xam ne ci plan bi li nga xamante ne mooy fexe frontières yi maanaam lu mel ni Jordanie Cisjordanie euh, ak Gaza yi nga xam dañ ko nangu woon en 1967 parce que aussi parenthèse Gaza ci Égypte la bokkoon hmm. mais Israël moo ko nangu mu bàyyee ko ko laaj ko Sina yi après ci ay négociation Camp David ñu jox ko ko waaye donc noonu maanaam état palestinien boobu superficie fi mu yem rek mooy Cisjordanie ak Gaza hmm. waaye dafay am ay tunnel yoo xamante ne ni moom la ñuy koy relier hmm. bokk na ci aussi désert du Negev muy bi nga xamante ne ci frontière u Égypte euh, aussi mu nekk loo xamante ne mën nañ ci jin dagg jox ci euh, euh, Israël parce que désert jox ci Palestine parce que désert la li nga xam ne nag mooy yuqu mbir mi moom mooy Jérusalem nga xam ne mooy Beytul Maqdis tromp dafa ne mooy nekk capitale éternelu Israël. Hmm. waaw moo dafay nekk entièrement sous le contrôle israélien te loolu xam nga kenn munu ko nangu parce que jullit ñi mun ñu ko nangu chrétiens yi mun ko nangu même ci juif orthodoxe yi am na ñoo xamante ne nanguwuñu lool mhm. waaw donc ñu ne munul nekk la capitale de la Palestine mais ci Abu Dis maanaam ci eh, eh, Jérusalem est foofu la mën a nekk hmm. donc loolu problème la léegi ñu soxla aussi ci li nga xam ne mooy le lieu saint comme ni ko waxee sànq muy jumaa ji mhm. yi nga xam mooy esplanade yi parce que léeg gis nga photo bi ñuy wane ci jumaa ji ni mhm. du boobu de boobu boobu bi ñuy wane nii ne moom mooy Beytul Maqdis mhm. te ñu koy wane du boobu boobu boobu technique communicationnelle lu maanaam euh, euh, euh, ñoom la ñoom les les les les les les les israéliens ak léegi mais du boobu boobu moom mooy mosquée omarienne mais beneen mosquée la parce que boobu ñu ngi def ay ay di ko xafriyaat hmm. maanaam di def ay euh, di ko gas ci suuf pour détruire ko léeg sax ñuy def archéologiquement boo gisee hmm. euh, UNESCO mu am problème ak Israël ak États-Unis may fàttali auditeurs yi euh, États-Unis récupéré récupéré woon na a suspendre woon na na membre am ci ci ci UNESCO Israël topp ko ci loolu hmm. parce que dañu ne archéologiquement archéologue yi nga xam ne dañoo neutre ñoom gis nañ ne fi Israël wax ne fa la temple bi nekkoon ba tax tey muy def li ak mur de lamentation du foofu archéologiquement mun ñu ko déterminer lan la ñuy def ay subterfuge di créer ay monnaie yoo xam ne dafay nekk ay préhistoire yu yàgg bu ko defee ci seen archéologue yu ñu créé ñoom bu ñu ñëwee sànni fii jékki-jékki rek woo télévision ne kaay fii ubbi nañ fi waaye bi ñuy ñëw bi ñuy kii gis nañu découvrir nañu li ak lii pour légitimer ñoom seen histoire moo tax ñu am problème ak UNESCO. Mm-hmm. ouais donc lu mel noonu nag euh, ñun les les musulmans les hommes et les femmes épris de paix et de justice nga xam ne bëgguñu lu dul jàmm pays yu mel ni comme Sénégal ak pays africains yi ñooñu munuñu lu dul ànd am position boo xam ne seen xel ak seen xol. lañ ci def pour que lu mel ni Palestine mu moomaat boppam bu ko defee jàmm ne ñooy kenn ku nekk dund sa dund ni nga xamante ne ni nga sa sa nga maanaam am sa autodétermination. Mm-hmm. mu nekk loo xamante ne dafay am solo. Mm-hmm. enjeu bi euh, jar na souligner ndax bu fekkente ni Israël dafa teg loxo ci Palestine nga xam ne masjid al Aqsa fa la nekk kon jullit ñi mënees naa mm-hmm. jàpp na dañuy ñàkk bërëb boobu. te bërëb bi am na lu mu tekki lu bari ci diine. Euh, comme nga ko waxee ñetti religion révélé yépp euh, nga xam ne daanaka ku ci ne am nga fa cosaan. xam nga actuellement nii. fi nekk nii dañu nekk di di di dund. Mm. loo xam ne c'était c'était des vérités eschatologiques. eschatologie ci ñi ñuy déglu mooy xew-xew yoo xam ne dañ ko doon ci ay téere loo xam ne ay junniy junniy at moom moo commencé di ñëw mm. moo tax sa question bi dafa am solo mm. actuellement jullit ñi ci seen ñàkk doole seen ñàkk nekk benn mhm. te nga xool nee nañu ñoo am alxuraan bi gën téere bi gën muy alxuraan yonent bi gën muy yonent yàlla Muhammad sallallahu te muy dëggit yàlla ñoom la àndal diine bi gën muy diine l'islam parce que diine l'islam mooy synthèse religion monothéiste yi ko jiitu yëpp mhm. te ba pare ñoom mënuñu gën loolu mooy problème bi moo tax lépp loo amuñu benn influence boo xamante ne ni ci décision yi nga xam ne moom la ñuy jël de par le monde li ndaxte li leen ko waroon a mën a may muy seen poids euh, politique géostratégique euh, ak leneen euh, économique ñoom maanaam ci loxo ñeneen la nekk. Mm. loolu moo waral tey nga gis. mais loolu lan a koy expliquer ndax bu ñu xoolee tey réew jullit yi am doole bari na fu mel ni Arabie Saoudite les euh, dëkk yi nga xam ni Émirats arabes unis yooyu yëpp ay réew yu jullit la tey référence daanaka ci diine bu ñu koy wax xel yi ci Arabie Saoudite lay njëkk a dem. mais lan moo waral yooyu am doole ba noppi jullit yi néewee doole ci xew-xew yi mel nii. mais dëkk yooyu yëpp yow xam nga bu ñu def sur le plan géo géostratégique kenn moo leen diriger c'est l'Amérique. du dëgg mooy jël seen pétrole Arabie Saoudite topp ci ginnaaw Amérique moo jural jullit yi loolu moo noonu Arabie Saoudite hmm. mi nga wax nii Arabie Saoudite moom dafa signé en 1945 ak Roosevelt mooy accord de défense léegi américains yi ñooy yor sécurité moom mu leen di jox pétrole crise de pétrole bi génnoon nii léegi entre Russie ak Arabie Saoudite kan moo ko kan moo indi solution bi du Amérique ci ay pression ci kaw Arabie Saoudite hmm. ndaxte kii de schiste pétrole de schiste bi bi feej feeñ fële commencé na am problème l'économie américaine commencé na am problème mm. dégg nga du gis nga pour pour pour pour gagner waat des des emplois yi nga xam ne parce que tromp ci moom la la yaakaar pour gagner euh, élection yi lan la wax Amérique euh, dama dama lay continuer di jaay Amérique di di jaay arme Arabie pour mu gën a continuer di xeex di détruire le Yémen ah dem ba ne danaa fa yóbbu euh, li nga xam ne mooy coronavirus bi te commencé na fa am léegi malheureusement. Mm. dem nañ ba gis nga seen guerre entre ñoom ñi nga xam ne ñoo coalisé woon xeex contre le Yémen gis nga tey ñoom ñooy xeex entre eux ouais mm-hmm. donc loolu c'est yow mënoo ko expliquer parce que yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. li mu ñu jàngal mm-hmm. moom mooy neen nekk benn waaw inna hazihi ummatukum wa ana rabbukum fa'buduni seen xeet wi ben la nekk leen ben xeet na gis nga ko it li mu communauté pourtant ci sociologie am na masse mhm. am na peuple am na population mhm. am na tribu am na clan ah ak yeneen yëpp mais gis nga li mu indi moom mooy communauté umma mhm. pour wane ne benn racine la benn jubluwaay la wala doon waaye ci diversité yu bari donc loolu moo tax lii nga xam ne moom la ñu nar a perdre tey muy mosquée bi kooku alxuraan waxoon na ko ma jox la aaya bi auditeurs yi ñu dem dellu xolaat alxuraan yaa ngi dégg mm-hmm. ci suuratul Isra bi ma wax léegi mm-hmm. boo demee ci aaya sept dafa ne in ahsantum ahsantum li anfusikum bu ngeen rafetee di seen bu ngeen rafetal bu ngeen mm-hmm. asaatum fala bu ngeen ñaawalee nag ah kooku seen bopp ngeen ko def waaye fa isa jaa waadul axirati maanaam dernière promesse bi xam nga amoon na première promesse euh, Nabucodonosor euh, détruire leen yóbbu mm-hmm. ba kirus moom moo leen delloosiwaat ba mu ne li yasuu wujuhakum dinañu laalal maanaam di ngeen dinañ leen ñamal seen kanam yi mm-hmm. maanaam dinañ leen toroxal te nag wali yadxulul masjida kama daxaluhu awwala marratin wali yu tabbiru ma alaw tadbira dernière promesse bi bu ñëwee te ñu koy dund actuellement mm-hmm. mu ne bu ñëwee dinañu dinañu leen duma te te te ñooñu bu ñu ñëwee dinañu dugg ci mosko bi mhm. maanaam jàkka ji dinañ ko jëlaat comme niñ ko jële woon ci bu njëkk ba te lépp lu ñu fa fekk dinañ ko toj nangu ko mhm. xam nga lii verset alxuraan la du xadis sax ñuy extrapoler wala mhm. leneen te tey bu amul woon tey occupation israélienne maanaam euh, mu mel ni mise en scène la fi mu nekk nii la yàlla di def bu amul woon occupation israélienne ñuy grignoter nii kii Palestine ba ñëw tey ne ñoo moom Jérusalem kon aaye bi am waaye nag waruñu nekk ay fataliste fataliste toog rek croiser les bras ne non non loolu la yàlla waxoon. Mm-hmm. mais dinañ ci xeex ba keroog volonté divine bi am muy ñu tudde woon ci eschatologie. Mm-hmm. waaw te nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yor suuf si mooy ñu juste. Mm-hmm. alquran wax na ko gis nga moo tax aaya bi verset sept suratul isra. moo tax. Euh, jullit ñi bu ñu yeboo xam ne ñu ngi dund actuellement. ci ay ay ay événements yoo xamante ne eschatologique yoo xam ne mi ngi yóbbu ci yoo xam ne ay téere ci tawraat ay cinq mille quelques années six mille ans mm-hmm. la waxoon yonent ci wa sallam wax ko gis nga tey alquran fii la ko brossé mm-hmm. ci biir alquran yëpp fii rek la ci mbiru masjidil aqsa ak yeneen yu demee noonu mm-hmm. donc mu nekk loo xamante ne lu am solo soxna su baax si. Mhm. am na solo lool waaye ndax euh, mënees naa jàpp ne solution mën naa am donte Alquran wax na ko euh, ñu jàpp ne xew-xew la ndax Alquran moom lu mu wax du deñ waaye ngir des ci suratul euh, saa boobu bi ci topp borom bi mi ngi wax ne mën nañoo yërëm nag bu fekkente mm. ni bañ nañoo dellu ca la ñu nekkoon. Mm. donc ndax mën nañoo jàpp ne xëy na bu nu jubbantikoo yaakaar mën naa am foofu. effectivement cest à tey bu ñu dee wax ci réel politique. Mm. munul parce que un état dafay nekk un état souverain day am territori territorialité am représentation mhm. am drapeau ak yooyu yëpp du dëgg te territorialité dafa am sécurité te sécurité bu fekkente ne un état viable day am sécurité boppam mhm. te bu fekkente ni ñu grénete nii territé ci ci territorialité wu maanaam Palestine dootul mën a si nekk mhm. te bu boobaa souveraineté bi nga xamante ne moom moo war a nekk mooy siyaadaam moom mooy moom boppam. Mm. dootu ko mën a nekk parce que sécurité boo ko yorewul mënatoo yore sa bopp. waaw donc te te bu ñu ko waxee sécurité bi mooy da il faut nga am ay armes. Mm-hmm. il faut mu am service de de d'ordre il faut que mu am des renseignements ak service yi nga xamante ne mooy ci aju yëpp pour que stabilité wu euh, pays boobu état boobu. Mm-hmm. loolu nag bu fekkente ne dafa nar a nekk ci loxo Israël comme ni ko ci plan wu. dindi siècle bëgge mhm. mais kooku jàmm mënul ñëw. te fekk jullit ñu ànd ñu tam du yomb. du mën mën a yomb moo tax mhm. li la Coran wax nii. Mhm. processus boobu moom Coran moom dafa am logique boppam. mi ngi dem parce que loo gis ci kaw suuf si rek am na fu mu jóg am na benn processus bu muy adopté ba kii muy dem. de de croissance. donc muy muy muy muy muy njanaaw yi muy muy muy muy gàncax gi muy nit waaw toujours loolu dafa ku ci nekk yaa ngi topp logique donc Israël actuellement logique am moom mooy occuper la Palestine mm-hmm. tey boo xoole carte Palestine bu njëkk ba ni mu meloon 1947 ak 2020 ak surtout ak nouvelle euh, décision israélienne ne dañuy euh, jël euh, lu bari ci Cisjordanie ak vallée de la euh, Cisjordanie mm-hmm. donc kooku problème la ba sax dañuy jëlaat ay Israël palestiniens yóbbu Jordanie mm-hmm. waaw wala dëkk yi nga xam ne fa lañ nekk nekk fa ay réfugiés lu mel ni Syrie lu mel ni Liban lu mel ni Jordanie ah ñu jël leen Égypte ñu nekk foofu dootuñu ñëwati te alors que le droit au retour dafa war a am. Mm-hmm. tu vois donc loolu moom mooy li nga xamante ne ni tey buñ ko xoolee dina jafe trop mën nañu wax sax mënul nekk pour que euh, euh, euh, mu am jàmm amaat. Mm-hmm. parce que jàmm jooju du arranger maanaam ñaari état yi. waaw alors léegi kon lan moo desee jullit ñi. maanaam lan la lan la ñu mën a def ndax. non non aaya bi aaya bi nga bi nga ñëw sànq. bu ñu ko xoolee dafay mel ni moom loolu day am. danañu danañu ko nangu danañu ko yàq ni ko borom bi waxee ci. al isra ci ci ay juróom-ñaar bi. mais euh, fi mu ne wax nga ni itam waru ñoo yaacaaral rek ne ak ah, comme nii lay demee mm-hmm. jaratul a xeex. Mm-hmm. lan moo leen war ñoom réew yi nga xam ne ba tey ñoo nekk xëy na di jàppale euh, Palestine ak di jéem a taxawu euh, bërëb mm-hmm. ba nga xam ni. ñëpp a ko bokk. xam nga yàlla moom dafa def logique am. ñun aussi dañuy def suñu yëfu nit. Mm. du dëgg. waaw yàlla moo ne ne dinaa la rey dinaa la def nii xam nañ ne dinañu rey. Mm-hmm. mais bu ñu feebaree dañu ko faju la du donc lii aussi waruñu toog rek di xaar nekk ñu nekk ay fataliste. Mm. waaw dañu war fexe di agir souvent ci destin yi. fexe euh, kii daf lay bëgg a dominer yow nga bañ domination bi. Mm. état yi dañu war gën a góorgóorlu muy les états musulmans ak islamiques. même bu ñu mënul nekk benn parce que nekk benn état islamique yi mu nekk États-Unis des musulmans mm. kooku dafa maanaam genre utopie la ah, ku xam actuellement ni mu demee mm -hmm. waaw ni ni ni jeu géopolitique mondiale bi di demee mm leen rek moo mën a am mooy état yi nga xam ne ñoom am na nañu te ñàkkul même bu doon benn état ñaari état yu taxaw rek hmm. mun nañu dimbali Palestine hmm. waaw par exemple xoolal tout tout secret de Iran mi ngi dimbali eh, eh, moo dimbali Hamas Iran moo jàppale Hezbollah ba mu dóor fii Israël 2006. Mhm. kooku du secret ci ci ci kenn. Mhm. ci actuellement 2014 eh, bi mu fi mooy dernière confrontation ouvert mhm. boo xam ne bu saf sàpp ah? mais mais mais mais bi mu amee xoolal li Israël daj ah moo tax ba léegi ñemeetu ko song ko ouvertement. ay ay ay menaces moo fi nekk verbal léeg-léeg mu am escarmouche ay yu demee noonu mm. Syrie ngi nii actuellement menace la pour Israël existentielle mm-hmm. bu sérieuse boo xamante ne ñoom dañ ko xam mm-hmm. te li wóor woor wóor actuellement na nga xool cinquante trois pays yëpp dañu contrôle Syrie di ko xeex mm-hmm. euh, journaliste nga xam nga li ma lay wax mais à part la Russie ak ñoom rek ñoo peser leur poids pour pour pour militaire pour wat le reste des autres nga xam ne États-Unis France. Mhm. Euh, euh, Grande ñëpp yi puissance occidentale yëpp. Mhm. dañu àndoon ak euh, Israël. ak les insurgés syriens pour pour daaneel le régime donc te loolu donc moo lay actuellement te Israël ci manque de maanaam ñàkk comprendre am parce que gis nga gars ñi dañuy naxaate rek naan le géopolitique fii les gros mots fii ak yooyu mais boo leen xoolee ci wàllu prospective ci wàllu zéro. gis ngeen ko tey ak coronavirus bi. Mhm. tu vois Israël moo fexe ci ci ay affaire am pour daaneel le régime syrien mu mën fa def régime bu ko favorable. Mhm. fexe na Iran bi nga xam ne dafa sori woon léegi mu am fa mom moom mawtiwu xadam comme ni ko arabe di waxee mu mu am fa présence. Mhm. léegi présence boobu. jàng dimbali na ko Israël ki Hezbollah bi nga xam ne guerre la mu noon léegi indil na ko de vastes terres yoo xamante ne ni mhm. euh, territoire yoo xam ne daf ci def ay exploit militaire contre Daesh contre contre euh, ñi nga xam ne ñoom la àndal ba am expérience militaire yu gën a gën a gën a euh, fructueuse mhm. gën a gën a vaste mhm. te yooyu yëpp c'est contre Israël donc actuellement Israël dafa am menace existentielle nekkam moo tax ngay gis léeg mu dem attaque fële xam nga attaque yooyu ci militaire dafa am solo parce que day évaluer parce que boo amee benn radar mhm. ak yooyu dañuy xoolaale radar yi mhm. ah, ndax capté na ko wala capté wu ko boo amee benn missile bu bu génn mhm. pour pour pour pour attaquer ko dañuy xool fan la jóge pour ëllëg bu ñu ñëwee ñu mën dóor foofu ak ban missile la ak yeneen xam nga technique de stratégie dafa am ci biir stratégie dafa am stratégiste mais aussi dafa am stratége am tacticien am évaluateur am analyste ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mhm. donc moo tax mu mu mu am solo Israël daal soxna si fi mu nekk nii mhm. moom euh, yàlla moo xam mhm. mais dugal na boppam situation boo xamante ne ni euh, mënatu ci génn te léegi pays arabe yi ñoo war a góorgóorlu joxante loxo xam ne fii la yonent bi njëkk a jublu foofu la demee ci rañaani jëli julli mhm. foofu la ñu nar a daje yowmal xiyaam mhm. donc mbir moomu dañ ko war a fonk mhm. te aussi chrétiens yi foofu la seen église nekk de la nativité tu vois ci ci ci ci Nazareth muy Nasariya muy maanaam li nga xamante ne ni mooy euh, église alkanisa alqiyama muy eh, l'église de la résurrection ci Jérusalem mm. foofu la nekk mm. tu vois donc yooyu yëpp mu nekk ay lieux yu symbolique yu am solo yoo xam ne suñu mbokk juif yi nga xam ne duñu ay sioniste mm. table yi nga xamante mooy alwaxu Moussa foofu la nekk ak l'arche de l'alliance donc mu nekk loo xamante ne lu am solo jullit ñëpp muy musulman muy chrétien muy juif dañu war a joxante loxo pour xeex li nga xam ne moom la Israël Euh, nekkee mm. mu jëlaat li nga xam ne moom la kiiw euh, moomeelu Palestine teg ko ci loxoom parce que sinon verset bi kooku moom mi ngi dox doxam mm-hmm. <laughs> waaw mi ngi dox doxam uh-huh. waaw Ah. jërëjëf mbaalo xam naa fi ah. la ñu yem ci waxtaan wi ndax waxtu wi hmm. daf nañu lool hmm. ñu di la gërëm bëggoon nañu ñëw sax ci tooluwaayu waa Palestine jamono ji waaye li ñu naan ce n'est que partie dinañu hmm. ci dikkaat xëy na ci beneen occasion incha allah nat euh, tolluwaay wi amoon nañu mbégte lool dalal la ci démb ak tey waxtaane alquds ak coowal Israël Palestine euh, lu aju itam euh, ci bërëb bu sell boobu nga xam ni ñëpp ko bokk jullit ñu am ci wàll wu rëy muy masjidal aqsa nekk ci Jérusalem loola yëpp nga dikkal ñu ci macha allah ci waxtaan bu am solo bari njàngale lool ñu ngi lay sant di la gërëm baalo waaw ah, yooyu ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm soxna su baax si ci sa perspicacité ci sa euh, taxawaay xam liggéey bu baax bi ngay def mu nekk lu am solo aussi di di nekk fierte pour jigéen ñëpp aussi donc am nañu solo yal na yàlla gën a jàppale euh, bu baax a baax ci zahir ak ci baat jàppale groupe bi réew mi nga xam ne bu ñuy déglu la bu ñuy déglu la di ko mm. topp mu nekk euh, bu am solo. jërëjëf jërëjëf Ballo ni yow yaay secrétaire général bu campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et la Palestine kon mbokk yi a mm-hmm. doonoon seen émission démb ak tey dalaloon ci Serigne Cherif Mballo mi ngeen doon dégg léegi ñu gërëm Jaawo Jàllo mi fare woon ci wàllu machine bi gërëm ko itam ci coordination bi ndax xamante bi ci moom la jaar gërëm leen yéen ñi doon déglu Fatou Thiam Ngom moo ci kàddu weeru koor wi nu génn jërë ngeen jëf